bu ci nek fatima ben yon khul wallahu ñetti yon deena tabbi àjjana te deesu ko hisab lol nak melne ne njariñ li gatt na way bari na solo lol se nek ma bis bi seen labir bis moy aduna ñett ño fi nek moy nit ñi malay yi ak suuf si nit ñi dañuy lek malay yi suuf si di lek nit ñi ku suuf di mujj nak bay bo suufé lol nek ba am solo la mooy faaw nga wàcc sa bopp ngir mën a jariñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah